tiimale ko ci ñi nga xam ne mooy askan wi yoon manifester. waaw xam nga loolu loolu appréciation nit la man nit duma jàpp li nekk sa xel. Mhm. du ma du ma wax li ne ci xelu jàmbur li ma gis laay wax li ma gis. mooy gis na ni moom mënul ànd ak ñi démissionné na te nee na day taxaw ngir jàmmaarloo ak ñoom ci loolu laa mën a yem. mënoon nañu xaar xam nga un journaliste. tu mm. es formé pour interpréter les faits. ci ay faits ngay yem. li nga xam ne mooy ci xelu nit ki li ko motiver démb li doon doxal du loolu du du ma ci ñëw parce que lu ni fàng la Sénégalais yëpp ñoo ko gisandoo mhm. donc jàpp na ne moom tey ñii mënumaa ànd ak ñoom mënumaa toog di xaar sax ñu may dàq damay tekki sama ndomba tànk ngir jàkkaarloo ñoom jël na choix am na ko est-ce que dafa dafa dafa teel a xalaat ni que moom dañ koy dàq bi euh, pourtant nag folli nan ay nit te bàyyi ko fa mhm. dindi na nit ñu bari te moom fa mu toog bàyyi nan ko fa mhm. non ba léegi daa yeggagul ci PCA yi de. waaw am na am na non xam nga nommé nañu euh, Habib Sy. Mhm. PCA dindi nañ PCA bu Sénélec bi teg ko kon moom dindeeguñ ko. Mhm. dañ ko bàyyi foofu mu ne moom moo tànn choix wu dem. Mhm. loolu da nga koy nangul nit ki. cest à am na ñoo xamante si ci wax. mën nga leen àtte. mais ci jëf mm-hmm. ñu nawu lanu mm-hmm. donte am na ci ñuy jëf-jëf yu xeebu nag mm-hmm. ñoo xam ni seen jëf yu xeebu dafa bari lool waaye am na jëf yoo xam ni nit saa yu ko jëfee dañ koy fii magnifier moom question de choix la jël na nit du ma xaar ñu may dàq damay démissionné ngir dem jàkkaarloog ñun loolu dañ ko koy nangu euh, ay kàddoom Thiam est-ce nga yaakaar ni demamu masale bii moom mbaa du ñàkk pexe waaw xam nga comme ni ko Joseph waxee rek xam nga dañu kii si Maodo Malick Mbaye d' abord. xam nga dañoo ne li salaati nuurun azimun tashruq bihi qulubul musallina wala yanaaluhu illal xaashin xam nga bu ñëw nee la mbaaxam toll na ba jëlu chauffeur am tuddee ko doom. kooku euh, mën nañu njort ni xol bi am na leer. ci jëfam bi muy jëf ñu ne làmmiñam mosul tudd lu ñaaw. xol bi am am na leer. Mm. Mm. te am na leer yi nga xam ne leeru julli bu fekkee dafa nekk ci yow. bi ñuy séddalee kii yu Cees yi bi ñu ko joxee daa bañ. dafa bañ. mbuurkat gis na la Serigne Baye Abdou dafa doon wax naan. jul bu ñu ko nee lan muy définition julli mu ne définition jul dara weesu lu dul bàyyi def lu bon. te dafay feeñ ci say jëf. ah loolu moom alhamdulilah yàlla na ko ci yàlla dëgëral. te Sénégal aussi nit yu am valeur yooyu lañu soxla. Mm. Euh, wàllu kii nag masal yi sincèrement xam nga ndeysaan Sénégal dañoo toll ci jamono yi Ablaye Wade Ablaye wàdd suñu maam jooju boroom xam-xam buy rëy boobu noonu. aussi tamit xaw na euh, am li nga xamee ni si magistère am. xaw na laal tuuti suñu wàllu jikko. Mm-hmm. am ñu yu bëri yu ci yàqu. ba tax na euh, jëf yi am ñu nga xam ne sañ-sañu jëf yi nga xamee ni. nit ñi dañu daan yegg peuple bi fi nga xam ne waruñu fa woon yegg. Mm. parce que nit waroo gaañ sa peuple. di il faut nga bàyyi xel génération yi di ñëw te gis nga li gën a doy waat si dañu def très attention ci jamono bi ñuy dund. gis nga réseaux sociaux yi du xës ba dugg. Mm. jeex na ba ilal ëbët. donc moo tax comportement yi ak jëf mm. ak saaga yi wax yu rëy yi ci kilifa. war nañ ko moytandiku. léegi nag masali moom man du ma ci wax lu bëri. gis nañ fi mu fi defoon démb gis na fi li li fi xew et puis posture am nee na dafay démissionné. Mm-hmm. nañ jàpp ni dafa bëgg a rek xëy na tamit dafa amoon dafa xam la koy xaar moo tax mu mu mu mu teel a jël ay dispositions. Mm-hmm. wala tamit mënul composer ak ñi fi nekk. Mm-hmm. wala bëggul ñoom Ousmane Sonko nekk kilifaam rek. mais di ci wax lu moom daal def na lu mu def donc dañ ko jàppee noonu rek. dañ ci dañ ci am benn commentaire bi nga xam daf ci jóor sax ay bàkkaar. voilà ça voilà waaw non man gis naa lu mu wax ci kii bi ne dafay jàkkaarlook ñi koy xaw ma lan. waaye nag waaye nag waaye nag nga ma waaye nag waaye nag bu fekkee day jàmbaarloog euh, kii bi nan nga bàq bàq nga mbër am nañu koy waxee. bàq nga jàkk bàq nga jàkk parce que ñii pour nga jàkkaarloog ñoom xam lan moo ci doy waar. parce que xamal moo ma xaw a jaaxal tuuti mooy ces grands hommes là comme ay Mamadou Lamine Diallo Boubacar Camara. Mm-hmm. ay ñoom euh, ki ki ki même ba ci euh, euh, nu ñu ko wax te. Thierno Alassane xam nga ñoom ba tey génn gu ñu wax. parce que pour ñu mën a opposer. il faut de ñoom dañ ko dañ koo mës a teg ci xam-xam. te ñi pour nga opposé leen il nga teg ko ci xam-xam te Mamadou Massaly nag nañu ma baal xaw ma nan la def ba nekk PCA xaw ma nan wala PCA moom dañ koy dañ koy nommé xaw ma daal mais dañ koy nommé rek xam-xam daal ah génn fi wax fi xam-xam xameewoo ko xameewuñ ko wax dëgg yàlla même même bi muy nekk kon na daal bu fekkee hmm. dafa ne dafay opposé fi nekk même bi muy nekk euh, même li kii di wax sànq endurance ak yooyu Massaly man pour bu ma koy xool ak bu fekkee ci wàllu toog gore ak yooyu non man d'accord ma loolu ba ñëpp am nañ ko am des wax dëgg yàlla ñi man nag ci côté jukko yi ngay wax man dama jàpp ne fu ci nekk ku nekk nañ la yaree sa kër ndey ak sa kër baay moom ngay indaale. Mhm. ci wàdd am na ay nit yu baax. Mhm. comme li nga waxee Mamadou Maodo Malick Mbaye mhm. comme noonu am ñeneen ñoo xam ne seen i jikko ku mel ni Masali la mu def ah. ci ci mu def ko ak comme comme ñu mel noonu ak yooyu mais man dama jàpp ne waaye nag kii Aminata Tall ak baax ci xale bu réew <laughs> Aminata Tall moo soxna soosu noonu moom daal am na ko fi génnoon wax ay wax yu kii waaye daf koo faj de. waaw waaw faj na ko faj yu métti. si faay ko si faay yu métti dóor ko ak a baax ci xale bu réew. Aminata Tall oh la la la ah xaw ma nag al ishaaratu nag di ñu nag doy na borom xel. doy na borom xel bon xam nga man. non non non dégg nga. bi ngay wax yow. amul daray PDS. non a des jaar ci tàggatu président Abdoulaye Wade. da ngay am endurance xëy na nag mu am lu mu ca dese néew mu moom Massaly en tant que tel. loolu lay refléter il donne dafay xam nit euh, mën nañ laa yar ci ci teranga mm. mënoo ko. Mm-hmm. waaye parfois nga yéwén. bilaay waaw mais mais moo tax ma wax la loolu. baal ma indil la nouvelle alliance pour la départ ma Macky. <laughs> Masalee ko créé woon ak Moussa ak Moussa Diakhaté mii tey nekk ci ensemble. voilà. sa sa kii sa sa sa sa wolof dafa am li nga wax ne dafa am lu ma fàttali. dafa am li ma fàttali. dafa am kenn ki nga xam ne dafa taxaw Massaly non Massaly Massaly il est dangereux xam nga tax mais il est très dangereux. Hmm. ba gaa jël gaal bi. nee na Macky Sall moo ne du def troisième mandat xale yi dañoo découragé moo tax ñu jël gaal gi mais il est idiot ce monsieur là. day day non dafay kii bukki def na. daay sëriñ bi nga baal ma ak xam naa sax xam naa ne affaire bi. mais xam nga loolu. loolu xam loolu boo ko wax ci peuple. xam xam loolu boo ko wax ci peuple. non non xam xam ay jeunesse jeunesse buy dem di jël gaat di deewi. waaw baal ma wax la lu nga ne jeunesse baa ngi deewi. parce que Macky Sall. baal ma dafa dafa dafa dafa troisième mandat. jaam càmm c'est c'est idiot bukki daa ñëw ne doom yi bëgg lu ñu may ko mu mu sieste quoi ne leen yàpp nga fële doom yi daw demandoo mu ne man baa waxuma dëgg <laughs> maanaam day nax boppam day nax boppam bon loolu la ko c'est que bon man nag sànq euh, fan yii li ko gars yi. bëgg tudd waaye jàpp ne loolu. loolu côté showbiz bi la te ñu daan yàq der ci jamonoy Macky Sall muy Cheikh xaw ma Cheikh euh, Wadji Cissé moo yàq deram c'est nag Ousmane moo weexu donc ba. même bu sa muus labee sax nga ne mooma hmm. maanaam li mu jël naan ay gaa yi dañuy jóg di asarne wu ci kawam ak affaire yooyu kenn def ko kenn def ko dara ñi ko def na ko lijjanti man nag loolu d'accorduma ci parce que dama jàpp ne les vies privées dañ ko bàyyi mu privé Mm. parce que waa ji lu mu saay saay saay saay. Mm. xale ba yoonam newu ci ëllëg day màggi bu mu ci mën a doon waxuma moo lii wala laa man yooyu duma ci dugg parce que man yooyu duma ci mais pour man li mu koy jël di ko laaxaale di ko joxañ le man tamit foofu laa d'accord non non non non a wax ba ma yegg parce que man damaa bëgg muy privé déggoo li ma la wax déedéet non dafa am fu ma koy tontoo moom parce que na ko na njong li daa war a yem ci aad yi <laughs> waaw comme yemalewu ko ci aad yi moo wax moo tax ma wax ko ne ko ña daan yàq der ca jamonoy Macky ak yooyu muy Ahmed Cissé ak ay Adamo ak ñooñu ñoom ñoo fi nekkaat di jouer